salli salaatam bi salaamin tuhfazun busaaratam misaalu ala tulfazun ala nabika rasuli abdika afdali man ilayka qaada jundaka sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil hali wal maali كما به صدقت لي لساني وقلتني لك مع الحسان يا من به نورتني جناني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 aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina muhammadinil makin sant naa mawlana wa wasilna cheikh ahmad al hadim nafaanillah bi barakaatihi di ñaan sunu borom di ko dagaan di ko xaaraan di ko yalwaan mu yàggal fi cheikh mouhamadou muntaxal bachir te dëbb ko kattan dooli ko ak wér dooli ko tawféex ba nigéel liggéey yi mu naal ci yoon wi yëpp mu àggali ko ba naal yeneen ci barke sëñ Touba xasida yi di ñaanal sëriñ Cheikh Jëmm Fall sama borom dëbb ko kàttan moom it mu yàgg fi loolu te wér ak mboolem njabootu borom Touba gépp gannaaw loolu yit ñi ngi doollee santaat sëriñ bi ci fekke gi ñu fekke waat bis bii ren di bis boo xam ne tàmbalee ci nuuru daare ni la yam ci nuuru daare ni nuuru daare ni nag li ñu booleeg moom sëriñ bi la waaye bis bi it buñ ci dellu see rek ñun ñëpp dañuy maase cant jëmm ji nga xam ne mooy sëñ Mouhamed Niang mi nga xam ne moo ñu fi dajale ngir cofeelam ci xasida gi ngir bëggam ci xasida gi ngir bëggam murid yi te loolu mooy lépp xasida yi it mooy li nu fi desee ndax li sëriñ bi di wax ci fulkul masoon rek wala yëhëb bi kulli xarfin minha jamaatan xaadimatan wa sunha dafa ñaanoon moom mbooloo moo xam ne dañuy doon ab mbooloo moo xam ne dañ koy liggéeyal ci xasidaam yi te loolu mooy lii ci ak mu jëm rawatina ci xasida gi nga xam ne moom la sëriñ bi bokk na ci mujjee taalif ci njaareem euh, loolu day dëppoog dajeg murid yi xam ne euh, yaa rabbi ijalil muridina maan fiis nekkal xasiin wa sam lañ maa waaye bis bi nag day bis ci bis yi ndax bis la boo xam ne ku am seetlu mbaa nga ciy teew mooy bis bi nga xam ne bokk na ci bis bi nga xam ne ci ngay fekk mboolem jàngkatu xasida yëpp mboolem ëxlu xasida dama ne bis la boo xam ne bisu qualité la waaye bisu quantité la ndax dajale mboolem ñi nga xam ne ñooy bégloo yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci di ko biral ci jàng xasida ni ko sëriñ bi doon defalee boppam njabootam gi doon ko defalee boppam day lu jafe ci jamono bii ñu toll waaye bisub Mouhamed Niang bi mooy bis bi nga xam ne yëg nañ mbaa nu am ak seetlu gis ne danañ fi gis mbokki jàngkat yëpp kii nu taxaw ci sunu fegg muy sëñ Mame Mbaye Guèye Nourou Darayni moom it ku ne xam ne diggam ak xasida gi di Nourou Darayni téere bi muy wëlëre sañ Modou mi téere bi boole leen comme ni mu ko booleeg mbokki taaliba yëpp sëñ Bolle Mbaye sëñ Abdou Khadir Diagne euh, ñoom sëñ Mourtala Loog ñëpp a ngi fi maanaam mboolem jàngkat yëpp rek waaye li ñu li ñu bëgg a wax li ne suñu xol ak suñu xel ëpp na lii nu bëgg lii nu tàmbalee waaye dañuy ñaan ci daraje suñ Tuubaa xaside yi daraje yi téere bii di nuuru daare ni sëñ Modou mi yàlla na ànd ak mbokk taalibe yi bis bi ak ñun ñu ñëpp téeméeri at yu tàmbali ren barke sëñ Tuubaa xaside yi xam naa dañ doon tijjil sëñ Mambay Gueye su ko defee li ci euh, gën a ëpp solo moom dana ci ñëw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziar te di leen ndokkal ci bis bu rëy bu màgg bu tedd bii nga xam ne sëñ Mouhamadou Niang nooru daree nii moom Serigne Abdoul Hakim moom Cheikh Mouhamadoul Bassir moom Cheikhul Khadim di ko defal Serigne Touba muy bis boo xam ni li muy yëg ci sëñ Touba du luñ mën a wax ci aw lamiñ du lu ay cër mën a jëf waaye yëg ne ne giir dundam gépp bu doon def noo gu nekk. mu di ko jëfal sëñ Touba di ko sante du tax li mu yéene ci xolom mu jot asakaay li mu yéenee jëfal sëñ Touba waaye kon mu sañ a tànn bis boo xam ne da ci woo mbokki taalibe bi yëpp ngir yëg ne li ko sëriñ Touba defal ci xaside yi rawatina gog nuuru daree ni ak tafeex gi sëñ Touba defal ci dëkk bii nga xam ne ndaw lu fi juddoo yaroo fi dees di séntu ci yow leneen waaye sëñ Touba wëlbati ab xolam wëlbati ay cëram wëlbati ak bëggam ba lépp jëm ci sëñ Touba mu yëg ne kon cantuk boppam mënta matale waaye kon ñi mu bokkal pas-pas ci sëñ Touba sañ na leen a woo ci benn jataay benn bis boo xam ne ñoom ñëpp kenn ku ci nekk da koy santale Serigne Touba ci yëg gim yëg ne léppam Serigne Touba jëmale na ko ci moom loolay saabus ni nga ko waxee rek muy wax ju matale ju jotale joo xam ne taxoo gi nga taxoo moom yëg-yëg pas-pas bi ma am ci Sëñ Tuubaa loolay sababus nga mën a waxe place waaye ñu langu ko mbokk yi nga xam ne ñooy bokkeem yoo xam ne daa fa sa ànd ak ñoom ba fa kanam Sëñ Tuubaa Sëriñ Mouhamed nag di koo xam ni mënee su ta wax ci moom ndax damay wax ni gone la waaye jàppiwul boppam gone ndax pas-pasu mag ña ak jëfi mag ñi rekk ne ci moom ndax murit la boo xam ne ak wiitalam Serigne Touba ci xolam ak wóolu ko Serigne Touba ci xolam yegg na ci bu yoroon ñett téeméer sañ naa song lool milliard a koy jënd ngir wóolu Serigne Touba te waxtu jot Serigne Touba di ko ci defal ndam loolu nag ku mbokkal ci bokku deret ci bokk kër ndey wala kër baay bokk yooyu yëpp maase nañ daje ci bis bii ngir yëg ne moom kat. ku koy wuy si ci bis bu mu mën a doon bu dee ngénte bu dee céet bu dee lu mu mën a doon yëg ne na bis boobu réyul ci moom bis bi yëg bis bi réy ci moom mooy bisu bii ak bisu màggal Touba loolay saabus ku ko xam-xam na boo làmbee ab xolom da nga yëg ne lam yéene sëñ Touba yéene ku ko jëfal poosam mënu ko ne xol bi toll ci jëfal sëñ Touba kat lu saayir gi matu loolu ku takkoog moom mbaa nga xam pas-pasam ci sëñ baa xam ni Mouhamed dem gépp bis bu ne day milaas boppam bi ko jox sëñ Tuubaa waaye nag murit yi moom seeni tànk ak seeni jëmm mën naa sëgg waaye seeni xel moom sëñ baa leeral na ko ba képp koo xam ne pas-pasam sëñ Tuubaa mi ngi ci yow ràññee nañ ko nag moo xam gone la wala mag ma mag la pas-pasam nag ci téere bi nga xam ne mboolem ko fi ñëw tey jii a mbokk deret gi parce que suuf sëñ Tuubaa la fi andi waaye kóllëre gum am lante xasida xasida yëpp yooyu sëñ Tuubaa waaye rawatina nag xasida ak Nuuru ak bëggam ci téere bi manees na koo seere bi may ñëw sama kër damaa làmb lu ne ma yëg ne détail bii ma yor dañ ma koo décoré woon ci Nuuru Daarayni ma yëg ne aw lu gën a rëy ci sama xol lu dul lii andil ko ko muy màndarga moo xam ne dama ko koy décoré. tey jii ni nga ko waxee mboolem jàngkatu yoon wépp a ngi fi sëriñ Ibrahima Gueye mi ngi noonu ci kanam doy na sëkk rek mu jàng ci barabu sëñ Touba ji doy na sëkk di jàng fulkul masoon waaye ni nga ko limee bàyyiwuñu kenn sëriñ mboolem Mbaye sëriñ Boukhadri Diagne sëriñ Talaaloo sëñ Sidi Ndiaye bàyyi léegi mboolem nag ñi mbokkal fasu su sëñ Touba bi rawatina waa ahlu minam tey jii mboolem fukk ahlu ne jëriñ yi ba ci ki gën a doon gone ñoom ñëpp daje nañ fi tey muy ñoo xam ne seenu ànd damay wax ne seenu ànd li ci gën a yéeme mooy kenn ku ci nekk danga ngaa fàtt sa bopp ngir sa morom li Serigne Touba wax ci nit war a àndeek mbokkum taalibeem ñoom noonu lañ àndant muy ànd boo xam ne àndub taalibe la waaye àndub ñeewantu boo xam ne kenn ku ci nekk la ne ci sa poos sa morom a ko ci may day mel ni liggéeyub Serigne Touba bii bu doonoon loo xam ne administration la ma man a waat ne moom am na ci ab cër bu doon ay ministère la ma ne am na bu ci fare boo xam ne aw turam tudd nenn lu dul nuuru darin fi xidmatal xaam yi anil arini ñu ñëwoon ngir ndokkeel ko ci bis bi yëkkati ko jox ko ko muy médaille Sëñ Tuuba boo xam ne yàlla nañ njiglaayam barkeb téere bi yàlla na ko làmb lii ñu ko tappal ci saayir yàlla na Sëñ Tuuba jël barkeb xasida gi mbootum xasida gi sëmbar ko ci jëmmam ba lim yii ne jëfal Sëñ Tuuba ci ab xolam ndax moom teraanga daa jekk ci moom ndax xam na fa teraanga war a jëm bokkul ci ñi nga xam ni dañuy wax ne sama borom bu ma mayee ba mu may leen ñu jëfe neneen kon ñoo ngi ñaan ci barke boo dem lu mu yéen bisub tey teraanga ji ñu koy teral ci yëkkati turu xasida jox ko ko yàlla sëñ Tuubaa defal ko barkeet li muy wut ci àddina ak àllaaxira sama borom defal ko ko ci jox gi ñu ko jox muy décoration boo xam ne ñu koy jox sëñ Mouhamed Nour Dali waaw asalaamaaleykum xam naa si kàddu yi nag lii nga xam ne ñu di leeral suñu digganteeg moom mi nga xam ne sëriñ bee ñu boole ci lépp te ñun murit yëpp dañoo sant ci lii nga xam ne moom dañu ci dimbali ba boole ñu ñu am dimbali teew ci Sëriñ Tuubaa xam ne ñun amuñ ak fayam li may dagaan rek moom mii de mboolem lii nga xam ne woote na ko yàlla na ko wuyu ci te murit yëpp jëriñ si dara jee xas tey. jëmm a ngi nii xam ne nag doguma la muy sëriñ Modou Diouf ñoom ñaar. sëriñ bee leen boole boolu biir boo xam ne ku ko gën a jegeñ ci mbokki taalibe yi am ñu ànd ànd pas boo xam ni lum naalal sëriñ Tuubaa rek ak nu jëf ja toll su geesoo muudu mu dana ko yokk pas boo xam ne moom dana yëg ne jëfagul dara comme jaxasool ci pas-pas téye na kooku mbokk yëpp seere loolu ànd ñun ñi nga ànd ak moom ànd pas-pas sëriñ Tuubaa mën a seere loolu kon jëmm ngi joo xam ne seenum ànd ànd boo xam ne sëñ Touba leen boole fii ci àddina te noonu la ñuy àndee ëllëg yowmal xeematul akbar moo ngi dagaan seen ànd bi yàlla nañ dem ba seen i sët di ko doonante ci barke Xaadimal Mustafa jërëjëf jërëjëf moom lii yëpp ay ay ay ay ay kàddu seede yu wér yoo xam ñun ñii rek mën nañ ci seede waaye damay ñaan si dërëjee xasida yi mboolem ñi fi nekk a ñun ñii yal na ko saa borom mos a si cat ba li mu bëgg a liggéey Sëñ Tuubaa mu àggalee ko da nga ñëpp ñaanal loolu waaw ndax jamono ji daa toll foofu yal na ko saa borom mos a si cat yàggal ko ba fi mu a mu àgg ak mboolem ñëpp dërëjee xasida yi loolu rek laa ma lu ma si kàddu jërëjëf bi اللهم صل وتسلم في أبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا رحمن ولتسلم على النبي ورسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وثق لغير بدني وروحي مكارئ الدارين يا مريحي وفق لغير ما حويت مفسدا ولا تواجه للعدا والحسد واجعل أقايدي وقولي والعمل غير مصالح واسرق لي الأمل وفي الذي ليتبه أبلي ما لم ينل الصالحون قبلي وصل يا رحيم ولتسلما على مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وتعبي في الحال والمآل barkeb Serigne Saliou barkeb sëriñ Saliou jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfati Serigne Saliou santaat loolu Serigne Saliou ci fekkee nga ko fekkee waat fii ci golf waaw ndax day mel ni booba léegi ñu ngi ko àndee àndee ko sunu sunu ndaj yu tedd yii waaw booba léegi ñu ko ñu ko ànd ñoom waaw ca commencement ba tey te lépp di tawféex ñu santaat ñu santaate loolu Serigne Saliou ci ni mu demee waaw di bég loolu ci liggéey bi waa di xam ne yëf yi yëfi Serigne Touba la waaw mbirum sëriñ Touba ku ci ku ci ku ci liggéey rek sa bopp nga liggéeyal waaw dañuy sandaat Serigne bu baax nag waaw euh, yëf yaa ngi nii berne yaa ngi nii yaatu lool barke Serigne tubaa yaatu na gars ñu ngi koy defar waaw lépp a ngi fii lépp mate na ko waaw ci barkeb Serigne Saliou sandaat nañ Serigne Saliou bu baax a baax ci nii mu demee. comme ñu ngi dellu sandaat Serigne bi bu baax a baax. Ah, moom mi ñu defal tawféex ba ñu fekk waat bis bii nga xamante ni mu di bisu nooru daare ni ñu ànd kook suñu mbokk taalibe bi nga xamante ni mooy Serigne Modou doon kenn si ñun doon kenn ci muritu Pikine yeeg golf ah, ñu ànd kook moom liggéeyu waañ bi ndax mu ngi nii lépp suñu borom defal na ñu tawféex ba lépp yemb ñu ànd ceeg jëwriñ ji sëñ ak soxna yi ki nga xamante ni mooy soxna Fat Demba Niang mi nga xamante ni moo jiite soxna yi comme loolooy liggéey bi ñun nax ñu bàyyi ko ba pikin ñëw fii eh, teewaay fi teewaayu Pikine teewaay fi teewaayu Kanzul Muxtadin ak kuréelu jokkoo Pikine yëpp ak kuréelu xitma Touba Pikine Pekkees mi nga xamante ni moo tax ñu ñëw xamanteeg sañ moodu xamuñu ko lu dul ci xaside yi xamuñu ko it lu dul ci bëgg sëriñ bi moo waral ñu bàyyi lépp it ñun teew fi teewaayu Pikine teew fi teewaayu murit yëpp rek waaw fas yéene ci ànd liggéeyal sëriñ bi te it di ñaan suñu borom nangul ñu ko moom mi nga xamante ni mooy taxaw bis bi suñu borom defal ko tawfeex defal ko kattan ba mu yàgg koo mën ak ñi ci yàgg àndal ci barki Seexul Xaadim jaajëf ñu ngi ziar tey tubaat bu baax a baax ci kàddu di sant nag mun Njaay mii nga xamante ne moo waral bis bi ñu koy wax Modou Niang moo waral bis bi di ko delloo sant bu baax ndax liñ naan xale bu loxoom setee mu mën a bokk moo waral ñu di ko sant jërëjëfati sëriñ Touba Mbacke ndax mu njaay day xale te jubluwul loolu ci yoonu sëñ Touba rek mënoon a génn nag di ànd ak moromam di doxi naka su dul noonu mun njaay ba muy xale ba nëgë ni kenn mosu koo gis ci caaxaan lu dul sant sëñ Touba rek mun njaay man ba mu nekkee xale ma di ko gis ba nëgën di ànd ak yaayam pantalon sax mosumaa gis mu sol ko ko lépp ngir bëgg sëriñ Touba rek bëgg xasaay ji rek te yàlla rek tax bañ naka ba moo papaam ak i lay àndal di dem daayira ba nëgëri moo waral mu am lii mu am te yàlla na gën a man yàlla na ko gën a man ci barke Serigne Saliou Mbacke. naa ko tubaarkàlla kon ñu ngi sant bu baax di sant yàlla di sant yonent bu tedd bi di sant Serigne Touba di sant suñu ñaari ñaari waajur ñuy gërëm nag mun njaay suñu doom ji nga xam ne moo waral bés bi ndax tubaarkàlla macha allah li Fademba wax rek. man Ndiaye daa gimmi rek jébbal boppam sëñ Touba kon yal na ko sëñ Touba téyel boppam di ñaan yàlla bisam bi yal na yàgg sax yal na ko yàgg def ay ati at def ko téeméeri at dund ba njabootam gi di ko aw ci bisam bii. Ndiaye gërëm dama koy ñaanal ndax sama doom la joo xamante ni dafa yaru am teggin ami fonk ay ndayam bëgg teg ko ci mu Ndiaye maa ngi koy ñaanal li bëgg ci bàkk xasaar yi yàlla na ko yàlla defal bàkk sëñ Touba. mooy njaay yaru na yëg na nit am na cofeel ci nit bu lay nuyu sax du la xëppi xool fu sa bët xonqee mu njaay boo ko woowee téléphone lu lu loo loo soxla rek mu njaay da ciy taxaw man na ba mu juddoo la ko yaayam jëloon teg ko ci sama loxo ne ma yaay yaayam ba léegi cër boobu mu njaay dindiwu dama koy ñaanal lépp lu mu bëgg ci xasaay sëñ Touba yal na ko yàlla defal. asalaamaaleykum jërëjëf Serigne Touba jërëjëf tubaa Touba jërëjëf Serigne Touba. sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg te ànd ak wér di ñaanal nag suñu doom ji moo njaay ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax lu mu mën ren yàlla na mën déwén lu ko ëpp yàlla na bokk ci milliardaire sëriñ Bamba yi ba mën di liggéeyal sëñ Bamba fu mu toll rek waaw ndax moom sëñ Bamba rek a ko ñor waaw ndax lu mu yor rek sëñ Bamba rek waaw kon nag ñu ngi koy ñaanal lu mu mën ren yàlla na mën déwén lu ko ëpp. julleeg yooyu mu njaay moom ma ko jàngal. waaw ma koy jëfandikoo ba léegi ma koy ñaanal yàlla nag réussite bi yàlla na ko yàlla defal ci darajey sëñ Touba ñu gën koo bëggale sëñ Touba nag yàlla na ko yàlla defal jàmm aar ko yéer ko mu njaay baax na bëgg na ñëpp man nag ah bariwu may solo mënu may sonal doomu aadama waaye xam naa man moo njaay moom mooy kan waaw man man xam naa ko depuis ba mu nekkee xale laa ko xam ñoo ngi ñaanal euh, mun njaay bisam bi mu def tubaarkàlla yàlla nañu dund ba mu di ko def ca stade ba te ñëpp fekke ko te mu ànd ak wér ak wérle ndax xale bu baax la taalu be la bëgg na ñëpp nag ku yaayam am bëgg na la yaayam it baax lool macha allah nday awa yàlla na fi yàgg te wér ak rek yaayam yi ak ñëpp la bis bii muy def yàlla na ko gën a mën comme ni ma ko waxee léegi rek yàlla nañ dund ba mu koy woote ca stade bu fekkee mbooloo mu jullit yàlla yokk ko yàlla na bokk ci milliardaire Serigne Touba yi ndax xale bu baax la xale bu bëgg ñëpp yaru léegi la soxnaam taxaw fii soxnaam it baax bëgg yaayam ndax li mu gis mu njaay def ko yaayam moo tax moom moom la def yaayam tubaarkàlla yal nañu yàlla la fal cat xayra man lu tawaj man bi ta annas al xaqir awanaytani bi